am yi sañ-sañ ci mi kenn tëggaaliwul ki mu doon moom kooku mi kenn tëggaaliwul ki doon moom kooku mooy Ababacar mbër mi kenn dëkkaaliwul ki mu doon bayna samaawaat ki mu doon moo kooku mooy Ababacar xalifa man baynal arde e ki mu doon moo kooku mooy Ababacar dondu Mawda dondi Cheikh soga dem moo kooku mooy Ababacar ka ca barzaq tey jëf laante ba tey billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq di leen baal ah, tey nag dañu doxantu si woon ba Ouest Foire fekk si jigéen bu ñuy wax soxna ay Aidara Mboup xam naa balaa ñuy continuer ci waxtaan bi rek dañ leen di bàyyi mu nuyoo ak yenn avant ñuy xuus ci waxtaan bi soxna Kya ñoo ngi lay nuyu. <laughs> maa ngi nuyu yàlla subhana wa taala yaa waxab yaa yum yaa ju dara barkiram yaa latif kabiru maaliki diini di julli si prophète Mohammed sallallahu salim di nuy sama ñaari waajuri di nuyu sama sëriñ sëriñ Babacar Sy rabiyatallaah di ñun ñëpp nuyu àdduna bi yëpp nuyu waa Mali àdduna yëpp laa nuyu. Ah, mu mel ni nuyoo bi rafet na macha allah. waa xam naa dañuy ñëw rek euh, dugg ci waxtaan bi soxna Kya ñu bëggoon la laaj soxna Kya kan mooy soxna Kya Aidara Mboup. su nga ma laaj kan mooy soxna Kya Aidara Mboup dina ci compter macha allah bu baax baax. Hmm, dina wax jërëjëf yàlla subhana taala yaa wax ab yaayum yaa juddala war kiram yàlla ci kabiru parce que yàlla mooma bàyyi fi tey bu ngeen toog di ma tàllal micro kan mooy Soxna Kya Aidara Mboup moom yàlla boobu laa nuyu bu baax parce que ku mu nuyu yàlla mu ne nuyu doomu aadama ku mun wax yàlla subhaana wa taala jërëjëf mu ni wax doomu aadama jërëjëf soo nag yaa ay daram bu ma jógee benn dëkk bu tudd Mali juddu foofu yaru foofu màgg foofu sama yaay mooy malien jóge Kirina Awala Woytala Somafina tout temps maa ngi wax internet bi ku wax rek man Serigne la ba ku wax na duumay sama maam nga xam sa maam fu mu jógee mu tudd man som nag yaa ay daram bu abal ma maam njaamur tiital ma si maam jaamur wax ma tudd maam jaamur man suñu famille yëpp ay sëriñ la macha allah ñu ñëwee ma wulum fi la belle génétique yi suñu famille yëpp ay sëriñ la plupart jigéen yi am na nay seetkat am nay ñaankat yi mais man soo nekk yaa ay daram bu seetkat la macha allah yàlla moom ma ko may jàngalu ma ko loolu c'est le don parce que foofu fan lañ ko jógee ñun descendant Mor Fidjan Jabati la. moo fu Jean Diapaté bi nekkoon almaam Samori Touré su nga togg nii su ma la leen jàkk rek mën a xam yooyu yaay kan mais léegi sëriñ dañu bare comme tout temps su ma ko sama waxtaanee rek ma ne dajale leen sëriñ yi ngeen def benn concours su ngeen def benn concours incha allah si katum yàlla wax ma man may premier de déedéet yàlla bëggul boobu mais taalibe seen Babacar Sy bi du ma doon dernier incha allah si katum yàlla parce que xam-xam papa dafa bare mais son ak yaa ay dana macha allah. di nuy waa Kirina nuy waa ko nuy sen louis sama dëkk papa fu mu jógee nuy waa fii yëpp. mu mel ni dañuy taxaw foofu tuuti rek parce que wax ji am na solo parce que boo dégloo ci biir waxam wax na ni wóolu na boppam ba ni mun nañ dajale sëriñ sëpp ñu wax waaye ci biir wax ji boo déggoo tamit nee na Soxna Kya ay Mboup est le meilleur loolu lañ buggoon xam fan nga ko teg. <laughs> fan la ko teg papa man sama lamine du lamine kakatar wallahi billahi tallahi da xam nga Qatar mooy jëli couleur yére bi jëli couleur yére bi jëli couleur yàlla subhanahu wa taala mu sax doomu aadama yépp sax na ko si maanaa man sama laamin bi du yà laamin ka Qatar li ma wax rek wallahi billahi du jeg papa man soo nag ay dara bu bala ma génne wax benn wax adduna bi yépp mu ngi la dégul lu leer laa ko tege fu wóor laa ko waxee su ma paree loolu tout temps maa ngi ko wax ci internet bi ma ne am na nekk nit ñoo xamul Soxna Gaye Aidara ba fii Soxna Gaye Aidara bu jógee su ko ne jëpp si ci biir ba ma ko Kirina Kirina dëkk bu màgget la Kirina dëkk am barka la Kirina dëkk am ñaan la ndax xam ku jóge foofu kenn waru laaj ko Serigne la obu di Serigne kenn waru laaj ko ni mu wax est ce que dëgg la du dëgg ñu toog fii rek incha allah yëpp di ngeen gis résultat Soxna Gaye incha allah. waa xam naa ci foofu la ñuy resté waat tuuti rek ñu buggoon xam soxna Kya xam-xam bi nan la ko dikkalee luñ ko jàngal la luñ ko sol la wala lan la ñu buggoon ci am ay leeral. soxna Kya am na xam-xam yi dafa ko dem jànguwaat comme tout si ma wax internet ma ne borom xam-xam dem leen wutu xam-xam parce que loolu lu tax ma wax loolu papa euh, yow mënu xam bi kese yem si bi kese xam bi kese yem si bi kese. xam si bi kese yem si bi kase yéen mi ngeen def caméra am chaque jour ngeen wuti lu bees di ko defar boo ñu wax bees lu tax ñu leen wax bees parce que lu chaque jour ngeen wuti recherche di ko di ko matalante soo nak yaa ñoom seen famille ay borom rawaan la ñoom seen famille seen maam mooy Mor Fadiane Diabaté Kalajula Sango yi Bematka Mor Fadiane Diabaté bi nekkoon almaam Samori Touré moom Mor Fadiane Diabaté boobu may waxtaanam ak jinne yi. moom mbir fi janjabati bomb moo wax almaam Samba Touré fi nga dem tey dinañ la rey mbir fi janjabati bomb bi waxoon loolu almaam Samba Touré almaam Samba Touré taxaw di jooy mbir fi janjabati man maa ngi dem de yow nga ne su yoon bi su ma ko dem de dinañ ma rey mais bëgguma dem si yoon bi maa ngi dem ma dem si yoon bee mbir fi janjabati ne su nga dem si yoon bee yow du de mais su nga dem yoon bee dinaa de man ah man góor la dina dem si yoon bee su ma war a dee ma dee parce que góor de nga war a wane yow góor la bul daaw si de mu dem mu de kon ku doon kooku est-ce que dafa war a ragal man maa waxoon Macky Sall su ko neexee mu wax au fin au fin fin sura caca ndax lu tax ma wax loolu papa ak ma gëm sama bopp man may Serigne Macky Sall Macky Sall xamuma ko musuma ko gisee yàlla mi ngi ma yëremande di ma joxe fekk na du Macky Sall yaagul léegi léegi léegi am na benn mbuur wax na sono ki yaa yaa ngi wax Macky Sall Macky Sall Macky Sall gisuma Macky Sall benn geste mu la defar man mi maa la may ñaar njogu oto. nga dem jëli ko. waa àdduna ñu ko gis. nag may ñooy ñëw ci Macky sàll bi. parce que débat bi nga nekkoon di wax dafa am solo trop. boo seetloo nag Sénégal. wala sëriñ yi tout le temps bu ñuy gis sëriñ. souvent dañ koy dond. seen papa yi ñoom nekk ay sëriñ. seen maam yi nekk ay sëriñ. wala sax ñu jëlee ko si seen yaay yi. ñu buggoon xam soxna Kya Aidara. nee na naam jàng na ko. waaye tamit am na loo xam ne dono lay doon. ñu bëggoon xam ci wàllu papa la ko doonee. wala si wàllu yaay la ko doon si côté yaay laa ko donné du côté papa de si côté yaay laa ko donné loolu laa la wax léegi sama yaay may waa na awala jigila wuytala suma fina sama maam Mor Fidiane Diabaté kala di la sama nguy bemma ka yaay laa ko donné dama doon seet bi si côté yaay mais maa dem waat jàng waat xobu maa dem waat jàng fétiche comprendre na mais instant fi ma nekkee yaa fet trois ans et quelque amatuma fétiche dama bàyyi fétiche loolu sant yàlla la di julli si prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di nuyu sama sëriñ bi mooy sëriñ Babacar Sy Rabiatallah depuis ma dugg fi Sénégal fétiche laa yore woon après ma seetal nit yi di def fétiche su la neexee lu la neexul yàlla dajale ko sama sëriñ bi ma juga si yoon boobu ma liggéey xob man dama dem recherche wutu xam-xam dama doon tam teg si yem ma si benn. nga may ma ma ñëw foofu parce que boo seetloo nee na si bi muy soog a ñëw Sénégal fétiche la doon def. Mm-hmm. mais dem na mu bàyyi fétis bi mhm. di seet si lu nga xamal ne si moom la yàlla bëgg n'est-ce mhm. Mhm. sa biir wax nag wax nga ba ci ni yàlla dajale la ak sa sëriñ muy sëriñ Babacar si ñu bëggoon xam nan la kalale la yàlla wanale ak sëriñ Babacar ni yàlla mu yàlla wane ak Serigne Babacar Sy ndax man de julli de woor de ñaan comme tout le temps si internet bi ma ko sama client yi ma ne ku dóor sa yaay ku <laughs> lu bon sa yaay bu ku dóor sa ba soxal ma sa alal mooy wane rek ku am barka ma def yëf barka ku amul barka mënu def yëf barka ma ñaan yàlla rek sama ñaani waajur yi rek comme sama yaay ak sama papa ku liggéey sa kër ndey sa ndey liggéey na kër papa da moom di barka rek may lii soo nekk yaay dara yaayam n ne bàyyi fétiche waa këram ñëpp ne ne bàyyi fétiche yàlla nekk bëgg seen Babacar si xolam torop macha allah boobu doo bés boobu tey ak tey di beneen de parce que photo boobu 1500 laa ko jënd woon tey loolu du ma ko wax ba mu xóot sunu dina yàqu. Mhm. mel ni li muy wax nii am na fu mu ko toll si xolam. Mhm. soxna Kya ñu bëggoon la laaj comme Sénégal sëriñ yu bëri nañ. Mhm. léegi nag comme par exemple su nit dafay vidéo dugal ko ci YouTube bi. Mm-hmm. da ngay gis commentaire yi. nit ñi naan noonu ñii xaalis lañ bëgg. Mm-hmm. ñii li ñuy wax gëmuñu ko. Mm-hmm. ñii mënuñu dara yow yooyu boo ko dee dégg naka la lay def en tant que sëriñ bu nga xamante si li muy def wóolu na ko. te xam na bu baax lii may def ban impact la am. moo temps ma ne yéen mën nañ jàppale ñun. comme ministre la santé mun naa jàppale ñun comme président mun nañ jàppale ñun comme jabar président Marème fay mun na jàppale ñun ngeen def concours ku nekk mu jël tuuti sëriñ comme quelques sëriñ maa ngi jégalu si wax bu wax ma tuuti sax parce que sëriñ tuutiw ku nekk mun na jël sëriñ fii ne kër bi kër bi kër bi kër bi si internet bi dajale ne ñu def benn concours même su fekkee na soxna kii yaa tokk la mu mun nit yi wiis ko si tokk boobu ku mun nañu wiis si loolu man soxna kii yaa ah. wax ma démb de ma tey lu bon duma ko laal alal bu leewu tam soxalu ma ko ma ngi sant yàlla subhanahu wa taala bi wér wér di ko julli si prophète Mahammed sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni point yooyu leer na dañuy ñëw nag tuuti si politique bi parce que bu ñu la dégloo sànq. Mhm. wax nga ci Macky Sall. Mhm. nga ni yow yaa ko waxoon ni ko. Mhm. fañi fañ fañ fañ aja wacaacaa. kon ça veut dire que. <laughs> ndeysaan li nga doon wax wóolu nga ko gëmoon nga ko. lan lan moo tax yàlla xiir la si Macky Sall lan la. man may descendant Mor Fidiane Diabaté kala di la sang bi maa waxoon Macky Sall surprise naa ñu incha allah si kàttan yàlla y' a deux ans maa waxoon Macky Sall dina gagné ku ne di saaga ku nekk wax lu bon maa waxoon encore Macky Sall incha allah si kàttan yàlla référendum dina ñëw Sénégal maa waxoon deuxième mandat Macky Sall dina gagné maa waxoon député bi Macky Sall dina man duma wax dara su du mbuur man may descendant Mor Fidiane Diabaté kala Mor Tidiane Diabaté moom waxul dara su du mbuur waxul dara de mbuur moo tax suñu waa yi nee na mbuur li nga mën a ko yéegal li nga xam ne wàccal waxal bu ragal dara si loolu ndaxam xam doomu adama nëbbatu si ginnaaw yàlla subhana taala papa xalifa bu nëbbatu si ginnaaw doomu adama doomu adama su nga nëbbatu su ginnaaw bis ñoom mu ne rànk si àdduna man yàlla subhana taala la nëbbatu si ginnaaw di gis leeraay prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam yépp ma génne sama gémmiñ lu leer la si man moo tax ma ne instant bi ma ne Lamine Kakatar yoruma ko waa du ma sëriñ hypocrite tam comme léegi ma toog fii di wax benn wax nekku si yow ma ne sénégalais dofuñu def leen concours ngeen xool soo nag yaa waxu premier la de waxu deuxième na may orma sëriñ yi nekk mag yi nekk fii mais gën a dóoru ñu si ñu wàllu seg waxoon def lu saf-saf yooyu <laughs> léegi ñu buggoon xam fan nga teg fan nga teg carrément que ni Macky mi dina fi am second mandat parce que bu ñu seetloo sa yeneen interview waxoon nga ni Macky dafay gagné élection yii te yàlla def na gagné na ko loolu fan nga ko tegoon loo gisoon la wala luñ la déy la wala loo seet ba gis ko la. dañoo defoon benn ñaan ci àll bi il y a deux ans sant kii jàppale nañu léegi wallahi bi la am na sëriñ yu baax Sénégal macha allah am na am na sëriñ yu maanu fi Sénégal. macha allah wallahi bi am na sëriñ baax Sénégal am na sëriñ maanu Sénégal am na ñu ma jàppale si fête bi di ma encouragé fête bi loolu léegi y a deux ans ñuy dem si àll bi ñu xool bu baax fekk nag ku nekk di génne Macky Sall du gagné deuxième mandat ku nekk di gën di wax. mu togg ci kawam. Mm-hmm. yaa ngi dégg soo nekk yaa nee ne tout man si ma gën a benn wax lu wóor la lu tekk la si man ni ma ko xool ma ne gëntoo ma de comme gënt naa la boo doyale boo yeewu. rawaan ñoo ko ba déedéet man ma rawaan bu gént di di yeew di wax dama ma rawaan bi xool comme midi et 14 di ma génne di ma ko wax may tàmba ba mi ay dara ba ni ko si ban asim ka alma mulum la de moo tax tey ma sol yërëm di ko remercier bu baax ba tàmba baam bi ay dara bale ko si ban asim parce que tàmba dafa baax musu jum sonn ak ay dara duma musu jum àdduna jeex. ki war a ñëwaat. tàmba mooy sama rawaan ku ñëwaat. pour représenter encore di defante ak gaañ boobu mu saaf mu ngi suuf tànk Macky Sall man soo ak yaay dara bu maa ko wax. Mm. mën nañu am turam. déedéet dina ko indiwaat papa man ragal ma dara yàlla la ragal. dina ko indiwaat incha allah. Mm-hmm. léegi Macky Sall lan ko koy conseillé ci réew mi. ma ko conseillé si réew bi da xam adduna papa ni mu commencé tàmmale ni bi baax na macha allah waaw commencement bi tàmmale bi baax na. mi ngi teg nit yi loolu baax na mais ba mu changé ni mu ko teg commencé teg nit yi baax na macha allah kontaan naa si moom si loolu mais mu xool tam si ginnaaw xool am na ñi suuna fi Sénégal jabaram baax na dëgg la mi ngi jàppalee nit yi dëkk bi dëgg la macha la ku juliti la ku baax la wallahi dama bugg waxta mu geesu xool jeunes yi liggéeyu gëstu xool ñi nekk hôpital sonn ba bugg a dee ñu dem togg télé yi di wote nit yi dañoo feebar mu gëstu xool bu baax a baax ñu sonn ñu liggéey ubbi usine nag yëpp léegi coow bi ak wax bi di jeex coow bi bi lan la ñàkk liggéey coow bi coow bi lan la amul ma dara def am ma dara def mooy indi yi soxorante iñaanante ak bonente mais am na li ma dara def suba su nga yow nga dem def loolu wax bi yëpp day jeex. léegi lan ngay tàggatoo ak sénégalais yi. Uh, ak sénégalais waa adduna bi yëpp man na uh, Soxna ay Aidara bu taalibe seen Babacar Sy maa ngi la uh, nuyu sama yaay ak sama papa su ma paree loolu man <coughs> sama liggéey façon dafa bare de mais mënu ma yëpp de parce que doomu aadama motul suñu motolante wu yàlla du defoon jigéen du defoon góor. suñu motaleen taw yàlla du defoon Mali def Sénégal de France Amérique day yemal ko benn dëkk rek su ma gis yàlla mu def yooyu yëpp wane ko ñun motaluñ suñu taw moo tax sëriñ mu ne man maa xam yëpp man ma mun a yëpp xamul dara. yaa ngi dégg man soo nag yaa dina faju humeur interne externe dina faju folie mentale dina faju ñu am problème donc mais fekk na ñaar trompe yi motu na ku ñaar trompe motul mënuma la faju bul ñëw sama kër bu yàq sa xaalis ñu am problème bopp métti ni ma faju bare na macha allah. bare na macha allah problème góoraay yi tànk yi métti yi digg yi métti yi bare na macha allah ne ma mënu faju tam mënu ma ko papa. loolu laa takk juwa àdduna bi yëpp ngeen fexe def benn concours ku mënu sa morom mu duma ko comme ni mbër yi def rek ñu ma ba mu saf. ma ngi nuyu sama président kontaan na yàlla ni fu mu ko tegee yàlla def ko fa place am yàlla def ba lékk dëkk bi mu sedd yàlla def ba lékk dëkk bi mu sedd si bakka Quran bakka sala fatiha si bakka laa ilaha illallah si bakka Quran yàlla mun na ko yàlla defar ko fi Sénégal comme ndox bi sedd buy maa ngi def benn lancement tam président Macky mu geesu ñi amul dara ñi sonn si moom demu mu sonn si ñoo ñoom mu defoon lu metti si moom bu ma leen bu <laughs> ay taalibe cheikh yi ñun tam sonn na si moom di ko wooye di ko def yëpp di ko ñaan waa kër na yëpp ñaan nañ ko mu gesu suñu ñun tamit noonu laa ñaan jabaram bu baax yi ma Maram fay sunu yaay bu baax bi ku julite bi ku am diine bi nuy waa àdduna bi yëw ni sama mbuur Maroc yi buur yu nekk uh, Dubaï partout ki ma may xaalis ma jënd oto maa ngi nuyu ñoom ñëpp seen tudd ak seen sant. Mm-hmm. mbokk yi allah wax ji rafet na. xam na lool la leen andi woon rek fii ci soxna Kya Aidara Mboup nekk fii ci Ouest Foire côté pharmacie dala la Victoire xam na nii rek lañ koy defee ak yéen saa su ne te yënguwul moo ku may Ababakar ak dogal ami sañ-sañ ci diine te yënguwul moom kooku mooy Ababacar mbër mi kenn tëggaaliwul ki mu doon moom kooku mooy Ababacar mbër mi kenn tëggaaliwul ki mu doon moom kooku mooy Ababacar mbër mi kenn dëkkaaliwul ki mu doon moom kooku mooy Ababacar Khalifa Bienvenue sur Salam Vision votre nouvelle chaîne YouTube des interviews des documentaires des publi-reportages des exclusivités recruter une équipe jeune et dynamique qui met leur professionnalisme à votre service.